xajumatul khidma bu nek ci diwan bu Touba kon euh, tere ñu sul fofé ci diwan bu Touba euh, ku ñu japp né borom ñaari tour yi la muy nak euh, ap néw bo xamné mu ngi joggé won mbour ñu war ko andi fofé ci Touba wayé ñom wa daayira mu xajumatul khidma ñom ñoko ko mujj gantal bu ñu ay xibaar yo xamné ne suñu correspondant ci diwan bu Touba ak Mbacké nañu ko doomu aadama bu nekk yaa ngi jaar ci yoon yoon wi nga jaar am na dëkk bu mu jëm te fokk nga àgg te kenn ku nekk mën nga xamal sa bopp yoon wi nga jaar na mu demee ak fu nga jëm na mu demee soo ko bëggee xam seetal yoon wi nga jaar rek ni ngay doxale sa adduna ni ngay xalaate say bëgg-bëgg li la jaral sonn ak li la ko jaralul da nga di xam yoon wi la jaar yow nga daal di xam yoon woowa rek dëkk ba mu jëm boo xamee yoon bu baax da nga daal di xam dëkk